retrouver euh, d'autres euh, témoignages euh, dem fekki koo xamante ni acolitam la woon daan liggéey ak moom foofee ca Ndar ca jamonoy Baara Yogoo ja kooku mooy Daouda Guissé Daouda gisee la ñuy fekki Ndar da ñu ngi lay nuyu di la massawu li ma wax ajot Marie Madeleine laa lay wax Sénégal mm. ñàkk na Ndar ñàkk na waaye yow Daouda Guissé yaa ñàkk waaw xam nga xam nga li ma li ma jikko wax moo di nañ xam ne d' abord ndar moo ñàkk d' abord. Hmm. ndar moo ñàkk doom ndar ci boppam moo ñàkk doom. Hmm. koo xam ne kii léppam ndar la woon guddi ndar bëccëg ndar ngoon ndar Alioune Badara Diagne Golbert bëggul woon lenn lenn lenn lenn ci àddina lu dul ndar. Hmm. dama bëgg Sénégal retenir d' abord loolu doomu ndar yi retenir loolu Golbert léppam biiram ak bitim ndar la woon. bi si des moo di. waajaloon na boppam. waaw waajaloon na boppam mu golweer ndax nit bu demee ba boo demoon tey marmiyal fekk fi nga xam ne foofu la defaroon boppam ni bu ma bu ma génnee àddina nañu ma denc fii mu bind ci ICG Alioune Badara Diagne Golbert. xam nga ne kii waajaloon na boppam xamoon na ne bés bii day ñëw moom xamoon na bés bi day ñëw bés des mooy eh, weeru koor bu ne. day woowoo ndar ak yu wër ndar kaay leen ñu dem ñaanal yi ñi nga xam ne daañu leen fekki ëllëg weer wu ne weeru koor wu ne at mu ne dafay def nan dem ñaanal yi ñi nga xam ne daañu leen fekki ëllëg kon xamoon na ne lii dana ñëw bés bi day ñëw eh, man mi wax ak yow. Hmm. soow yàlla gannaaw ñaan sama ñaani waajur gannaaw suñu borom ak sama ñaani waajur mën naa wax ne Golbert moom moo yóbbu ci li ma li ma doon tey Golbert la. Mm-hmm. su ma nekkee tey journaliste ba mën a nekk chef de station ba liggéey ba retraité Golbert Diagne mm-hmm. man RTS Saint-Louis laa nekkoon nekk fa animateur aw ma dërëm ay ati at vingt trois ans ma nekk RTS Saint-Louis mais yàlla mi dara tawul ma ñu ma bind Baara Yego ñu joué Baara Yego keroog bi ñu président Abdou Diouf recevoir ci palais ba. Hmm. ñu toog président Abdou Diouf ni ma Daouda ma ko na ma ne ko naa mu ne waaye yow nan nga doxee xalaat xalaat bay bind Baara Yego nan nga bi dikkee ma ne ko ah inspiration moom kenn du xam fu mu jógee monsieur le président. Baara Yego Golbert ne ko naa mu ne ko Daouda gisee ñii de ngay dégg ci rajo bi. Hmm. ak di bind Baara Yego bii mu ne ko mu ne amul décision amul dërëm 5000 francs lay fayeeku euh, cash. président ne ah mu ne maanaam mu ne à partir de aujourd'hui jeudi jeudi prochain bëgg naa Daouda Guissé am am décision nii a amee décision man. Eh, Golbert tax kanaw yàlla. ndeysaan ndeysaan. mu di sama xarit lool. Hmm. Golbert du def lu ma yëgul. Hmm. du def lu ma yëgul. Hmm. lépp lu mu am am naa ci. kon man xam naa ne j'ai perdu un ami. avant-hier rek man moom ñu ngi waxtaan avant-hier. avant-hier. mu ne ma Daouda foo nekk man maa ngi dama confiné sa bopp mu ne ah confiné sa bopp de. confiné wul ku confiné wul boppam moom. Hmm. soo demee ci mbedd mi daa daa daje coronavirus hmm. lii la ma wax. boole ak reyam yooyu. Hmm. kon nga xam ne man j'ai perdu un ami j'ai perdu un confident. j'ai perdu quelqu'un avec qui j'ai par beaucoup partagé beaucoup de choses. mais mais en fait c'est Saint-Louis qui a perdu. c'est le monde sportif qui a perdu. Ah. c'est le monde culturel qui a perdu. Sénégal ñàkk na. ñàkk na doom ñàkk na koo xam ne kii ndar moo taxoon muy jóg bu dégg bëccëg suba ngoon moo doon wax ne dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi ko gën parce ndar dafa xamoon ndar. Colbert yal na ko yàlla yërëm. Euh, wax ji dina jafe lool merci beaucoup de Guissé ñu ngi lay gërëm bu baax ci témoignage yooyu nga xam ne indi nga ko euh, jagleel ko sa xarit euh, Alaaji Golbert Diagne on attend d'autres témoignages